parle de nu ñu koy waxee théâtralisation. Mmh. mmh. cinéma mmh. déjà fi ñu toll nii depuis quelques jours on ne parle que de Idrissa Seck Macky Sall. Mmh. ana Ousmane Sonko ça veut dire que gis nga dualité boobu ñu doon wax. dagg nañ ko pour le moment kase nañ ko. parce que maintenant il y a à la une de tous les quotidiens à la une de l'actualité Idrissa Seck Ousmane Sonko tous les deux des maanaam fekk Macky Sall euh, Macky Sall tous les deux des libéraux maanaam foofu lañu jàngee ci Abdoulaye Wade ay a Abdoulaye Wade li Abdoulaye Wade doon wax naan cinquante ans bëgg naa libéraux yi nekk ko ci pouvoir mm-hmm. est-ce que loolu léegi ils sont dans ce cheminement ils sont dans cette logique mm-hmm. c'est une interrogation mais ce qui est sûr mooy l'opposition euh, a encore son mot à dire mooy l'opposition Euh, classique bi ñu fi xam depuis un certain temps. Mm-hmm. Ousmane Sonko nee na maa ngi dem tàmbaliwaat samay nemmeekutu. Mm-hmm. Euh, waa euh, wàllu ak parti démocratique sénégalais ñoom ils sont toujours dans leur logique Karim nañu bisi mooy suñu candidat pour le parti démocratique sénégalais. Mm-hmm. on a vu d' ñoo xam ne ku ci nekk yaa ngi fëgg sa bopp. mais parlons des anciens de Idrissa Seck de Rewmi. boo xoolee Mansour def na benn analyse très pertinente ci. ñi war a ànd ak moom wala ñu bëgg jóge ci moom mm-hmm. wala ñu jóge ci moom tous les jeunes qui étaient derrière Idrissa Seck l'ont quitté xamul tax parce que dañuy lijjanti avenir politique Abdourahmane Diouf Déthié Fall Thierno euh, Bocoum euh, ba ci euh, d'autres de de de réew mi ñoo xamee ni ils étaient fësoon ci biir parti bi di di réew mi mm-hmm. mais ñoom ñëpp jóge nañ fa parce que ils sont jeunes mm-hmm. te am nañ avenir politique Maintenant, quel est l'avenir de Rewmi, pas seulement au sein de la classe politique comme on dit, mais derrière Idrissa Seck parce que Idrissa Seck moo waxoon bon su ma amee cinquante six ans naa bàyyi bàyyeeku parce que joxe na li waral bi mënul gouvernement bàyyi parce que option bi mais coow li mooy même bu amul cinquante six ans dinaa bàyyi ak yu mel ce qui est sûr c'est que l'avenir politique après à partir de 2024 ce n'est plus l'avenir des vieilles personnes entre guillemets donte dañ naan euh, mag man naa ba ba ci nekkatul mbirum mag ñi mhm. xam nga mbirum lan lay doon les plus jeunes les plus frais entre guillemets ñiy doog dugg daanaka ci politique wala amaguñ ci expertise wala expérience bu bëri donc on verra ce que l'avenir nous dira mais ce qui est sûr c'est que Idrissa Seck a son avenir politique ainsi que Rewmi en pointillé ci man leen rek laa ci yokk mooy Idy à chaque fois bu génnee entretien bu mag dafay fàttali sénégalais yi que ne bi muy jàng États-Unis mosoon dañ ko bindal article de presse buy wax ne Idrissa will someday bi president looloo nekk ci boppam te loolu man loolu obsolète na loolu obsolète na. loolu la nit ñi war a bàyyi bàyyi idi loolu la war a bàyyi xel boppam te xam ne ak tentative bu mu mënti def tamit dafay sonal ñi nga xam ne ñoom la bokkal ñoom la nekkal te wax dëgg fa yàlla du mun a am mucc du mun a am mucc donc loolu ñu bàyyi ci xel bu baax a baax a baax a baax ili moom dans sa tête il il il va président donc ak lu mu mun a waxoon tamit da ci delluwaat rek te kenn du ci mën dara su boobaa. loolu wax dëgg fa yàlla bëggoon naa ko euh, bàyyiloo xel.